Voilà

koy nëb da koy nëb ah daal sa loxo. بالتوبة النصوح والإقبال إلى الله بالدلع بتلاوة كتابه العزيز والابتعاد بالموعظ الحسن والاعتبار في أفعال الخالق بخلقه والاتعاظ بأفعال الخالق بخلقه والتفكر في آياته والدعاء لإحياء لأحياء المسلمين وأمواتهم امتثالا لأمره تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وصار لكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تقوم وقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقوله جل وعز فاعتدلوا يا أولي الأبصار وقوله تعالى ادعوني أستجب لكم نحمده ونشكره بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكره تعالى لأننا تائبون إليه من جملة الكبائر والكبائر توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ونستمد من بعد جوده وكرمه أن يوفقنا للاستقامة على ما يحب ويرضى وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرا وباطنا مع السلامة والعافية في الدنيا والآخرة واعلموا أيها الإخوان أنكم بين أمر ونهر ووعد ووعيد والدنيا دار ممر والآخرة دار المقر واعلموا لدنياكم بقدر مقامكم فيها واعملوا لآخرتكم بقدر بقائكم فيها واعملوا لله بقدر حاجتكم إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وتأهبوا ليوم النشور ولا يغرنكم بالله الغرور وانظروا إلى من كان قبلكم ومن كان معكم ممن سبقوا إلى دار الحق فيهم من بنوا الدور وسكنوا القصور وصاروا سكان القبور حيث لم يذكرهم ذاكر ولم يزرهم زائر ووجدوا ما عملوا حاضرا وضاقت الحيل وخاب من الدنيا الأمل ولم يبق إلا الافتقار إلى رحمة العزيز الواحد القهار ذلك رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما الذي هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا فقد قال تعالى في الكتاب العزيز ولو ترى إذ فزعوا فلا خوف يوم ينادي المنادي من مكان قريب وترى الناس سكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد yawma yatadakkaru l-insaanu maa sa'aa wa burrizati l-jahiimu liman yaraa fa ammaa man taghaa wa aathara l-hayaata d-dunyaa fa inna l-jahiima hiya l-ma'waa innahaa saa'at mustaqarran wa muqaamaa wa hum yasṭarikhuna fiihaa rabbanaa akhrijnaa na'mal saalihan ghayra alladhii kunnaa na'mal وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى حصلت وحصلت مستقرا ومقاما وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فاجتهدوا في امتثال الأوامر وداروا قبل فواتها واجتنبوا المناهي قبل أن لا تنفهم الندامة ولا تقنطوا من رحمة الله واعلموا أن الله غفور رحيم ورحمته واسعت كل شيء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ولا تتباغضوا ولا تحاسدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتأدبوا مع رؤاية رؤسائكم الدنيوية أهل الدولة ولا تنازعهم فيما بينكم مما جعله الله في أيديهم حيث أنهم يعادلوننا في ديننا ولم يفسدوا علينا دين في ديننا حيث أنهم يعادلوننا في دنيانا ولم يفسدوا علينا في ديننا وقد قال تعالى في كتابه العزيز لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم tàmbalee tudd ko wax ni sunu boroom mooy kilifa nee na maa ngi sant yàlla moom mi nga xam ni ci xéewalam ak ci màggaayam moo tax lu baax di mat maa ngi julli itam ak sëlmal ci ab yonantam di muhammad ak saxaaba nag ñu dem ñoom ñi nga xam ne ñooy boromi ngëneel ba loolu wéyee nag mu ne yéen bokk yi maa ngi jëmale yéen yéen mbokk yi wàcc ci pàkk bii maa ngi jëmale ci wax wax ji ci yéen ndax pàkk bi nga xam ni lenn rek a na daje ji lenn rek la du jublu ci daje gi du loola lenn lu weesu sàkku ngërëmul yàlla ci tuubal ko tuub bu sell ak jublu ci moom suñu borom jàng téere bi ak waaw waaw bu rafet ak a xalaat ci jë ak xal ak a ñaanal ñi ñiy dund ak ñu faatu ñëpp loolu itam suñu ko def suñu ko dee def ndongu ko teg ci wax yàlla li mu wax ne ni yaa ayyuha allazina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha yàlla dani yéen ñi nga xam ne nii gëm ngeen yàlla nangeen delluwaat ci yàlla tuub tuub ku sell ndax su ngeen tuubeetu ku sell mën naa am mu jéggal leen kaafara seeni bàkkaar tàbbal leen àjjana joo xam ne ni ay dexay rox ca suuf mën naa am nag bu ko sunu borom waxee mooy dana nekk kon suñu tuubee mu jéggalu yàlla waxaat ni inna alladina yatluuna kitaba allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuuna tijaratan lan tabuur ñi nga xam ne nii ñu ngi jàng téere yàlla bi tey taxawal julli yi te li leen yàlla na jox ñu di leen def ngir yàlla def koogee ñu di ko def di ko feeñal ak di lu ko def ci lu def ci lu nëbb yàlla nee na ñooñu ñu ngi yaakaar am yaxamtu wala am moo xam ne lu lamb mukk kon danañu tolom yàlla waxaat ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana na nga woote jëme ci yàlla waaye nga defe ko xereñ defe ko xel defe ko tey ak waare wu rafet mu waxaat feneen ni faatabiru yow li daf saar yéen ñi yore xel di xalaat xalaat leen ci ma leen wax mu waxaat feneen ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen woo leen ma ma wuyu leen kon nag moom noo ngi koy sant noo ngi koy sant di ko kañ di ko sant ci mbooleem xeeti cant yi ñu ko mën a sant yépp noo ngi ko ciy sant yanu xam ak yanu xamut noo koy seeral moom suñu borom ne leen day noo koy tuubal mbooleem bakkaar yi ndaw yi ak bakkaar yi mag yi noo koy tuub tuubiinu jaam boo xam ni dafa tooñ te moo mënul boppam jariñ moo mënul boppam lor yorul ak dundam yorul ak dee bu ëllëgee noonu sàmm àdduna kër la moo xam ne fii jaar rek jàll waaye àllaaxira mooy kër gi nga xam ne dafa la ñu dëkk fa la ñu sax na ngeen liggéeyal seen àdduna jii lu toll ne li ngeen fi war a sax kon bul liggéeyal àdduna lu ëpp li fi war a sax waaye bul liggéeyal lu yées li fi war a sax na nga liggéey moo tax moo tax daal di lam la bëgg a wax xoolal li nga nar nekk ci àdduna ak la nga war a nekk ci àllaaxira kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar nga xool lam yeyoo ci sa coono nga jox ko nee na na ngeen liggéey ngir yàlla seen kem aaj yi lu toll ne li ngeen soxlawoo seen borom nga liggéeyal ko lu toll noonu kon loolu mooy suñu lépp nan ko delloo yàlla ndax soxla nañ yàlla lépp loolu ngay noyyi soxla nga ci ndimbalul yàlla ndax mooy tax mu dugg bu génnee sax nga ci dimbalu yàlla ndax bu ko neexoon ndox bi du kon soxla nañu yàlla ci lu nekk mu ni nit ñi yàlla nee na yaa ayuha nnaas antumul fuqaraa ila llah wallahu huwa alganiyul nit ñi ne xam ni yéen a ñàkk yéen a soxla woon yàlla waaye yàlla soxla ku kenn mooy ki nga xam ne nii moo yeeyoo cant ku ko santu na ku ko sant yi daal santu na nee na na ngeen waaj waajal leen bis ci seen kanam muy bis bi ngeen nare tekki te bikkawaay waraakoon bi bu mu leen war waraakoon bi bu mu leen war ci seen boroom waraakoon bu mooy seetaane waraakoon bu mooy adduna xool leen ci ñi ngeen ñi leen jiitu woon ak ñi ngeen àndaloon tey jii am na ci ñoo xam ne nii jiitu nañu ca këru dëgg mënu ñooñee de am na ci tabaxoon ay château ay ay njëndi ay château am nañu tax waxoon ni kër tey ñii ña nga dëkk ci ay bàmmeel ña nga nekk ci barab yoo xam ne ni kenn fàttali ko leen kenn tuddatu leen kenn nemmi leen kenn siyaareetu leen te seen i danaa xam fees dal ak i mbooloo tey ja nag mooy loolu lépp gisatuñ ci dara lañ fekk ci seen kanam mooy la defoon rek lañ fa fekk ووجدوا ما عملوا حاضرا loolu rek lañ fa fekk وضاعت الحيل seen i pexe xat na amatuñ benn pexe seen yaakaar sooy na amatuñ benn yaakaar ci àdduna dara deseetu leen nag lu dul yaakaar yërmande yàlla yaakaar ndimbal yërmande yàlla ak njëggalam moom mi nga xam ne nii mooy ki tedd te tudde boroom te tudde boppam njëggalaakoon bi moom mi nga xam ne mooy kenn ci noot moom mi nga xam ni mooy boroom bindeef yi moo moom asamaan yi moo moom suuf yi kooku ki nga xam ni mooy reeloo ko ree ko nekk moo la ree la mooy jooy doo itam mooy rey mooy dundal yàlla wax na ci téeram bi ne bu yowmal xiyaamatee ba yéefar yi tiit ba jàpp kenn ku nekk bëgg a daw te amatul fenn fañ daw ba làqatoo fa fàttali ko ren bis ba nga xam ni dana am aji woote te fu muy woote du sori woote nit ñi ñu jëm fañ leen di atte nee na bu boobaa da ngay gis nit ñi ngir jaaxle ngir xiif ngir mar ngir tàng dañuy mel na ñu mandi te fekk boobu lay mandiwuñu waaye bëggoon yàlla metti rek bis boobu mooy bis bi leen yàlla di tëkkoo mooy bis bi yàlla doon dég bis boobee jëmm ju nekk danga nga ñëw ànd ak ñaar ku la jiital jëmale fa ñuy atte ak ku nar a taxaw di la seere lépp loo defoon ci àdduna mu taxaw seere la ko bis ba nga xam ni sunu borom day wax safara ne ko ma yow ndax feesagum nga ndax li dugg ci ay yéefar yépp ndax tax na nga fees bu ko defee safara lay wax ne ndax ndolleen amat na ndax ndolleen am na ndax ndolleen am na bis ba nga xam ni doomu aadama dana taxaw fàttaliku lu njëfoon lépp ñu génne sawara ñépp gis ko bu boobaa nag ka xam ne dafa teewoon dund àdduna gënaloon ko kooka moom sawara fa la jëm moo di saxwaayam cay boobu saxawaay ko bon cay boobu saxawaay ko metti boobu saxawaay ko ñaaw nee na nga ca sawara di yuuxu naa rabbana axrijna naamal saalihan xayra alladi kunna naamal ay yàlla nu nu dellu àdduna ndax nu def lu baax lu bokkut ak lan doon def ban teg nu li nu nekk loolu mooy ki nekk ci woon ci lu neexul borom waaye nag wa am naa man xaafa maqaama rabbi ki ragaloon jàpp taxawaay kanam borom doxoon digganteem bànneexam ak bakkanam kooka àjjuna mooy saxawaayam saxawaay bu rafet a ngoog saxawaay bu baax a ngoog te lépp loo xam ne ni bakkan bëgg na ko ma nga ca àjjana lépp lu neex ci bët ma nga ca àjjana kon nag góorgóorlu leen ci topp ndigal te góor ngeen góorgóorlu dabaatal balaa faat ba nga xam ne da ngay àgg ci dootoo mën a bëgg a dabaatal te doo mën a dabaatale dara na ngeen wattandiku li leen yàlla tere bala ngeen àgg foo xam ne ni rëccu dootu amati njariñ na ngeen bu leen naagu mukk ci yërmande yàlla xam leen ni yàlla ku mën a jéggale la ku lewet la te yërmandeem lépp xat na ci te ki képp ko ñëw ci moom indil ko benn bu baax mu fay la fukkam képp koo xam ne nii ñëw nga ci moom indi ko benn bu bon du la fay lu dul la nga defoon benn rek la lay fay te it ngeen xam ni yàlla nee na innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum yàlla nee na jullit ñépp ay mbokk leen kon nag defar leen seeni diggante defar leen seeni mbokk na ngeen yagal yàlla te ngeen defar seen i diggante seen i diggante rafetal leen ko bu leen bàyyi noonu duggal seen biir mu ne wala tabaagadu wala taxaasabu bu leen bañante bu añaanante wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala ismi wal udwan dee leen di ci topp yàlla dee leen ci ragal yàlla waaye bu leen dimbalante mukk ci bàkkaar ak noondoo ak tooñant na am teggin ci seen diggante ak seen kilifa yi àdduna te ñooñu ñooy waa état bu leen xàccoog ñoom la yàlla teg ci seen loxo ndax ñoom ginnaaw ñu ngi nuy dimbali ci sunu di àdduna te yàqal nu sunu diine te yàlla waxoon na ci téeréem bi ne laa yanhaakumullahu ani allazina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarru ilayhim wa an tabarru wa tuqsitu ilayhim yàlla waxoon nañ ci alquran ne yàlla aayewu leen ñi nga xam ni xeexu ñoog ñoom xeexu leen xeexu ñoog yéen ci seen diine génnewuñ leen seeni kër yàlla aayewu leen ngeen defal leen njëkk ak teraanga waaye ngeen maanu seen diggante ak ñoom ndax yàlla nee na dafa bëgg ñi maanu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa